kon nag sangum janaba ngoog ak la ca xaju sa sunna yo loolu jeex na léegi nag li xaraam ci ku xamee ba moom lay wax si dafa am loo xam ne boo xasee xam ba dañ koy xaraamal ci yow nga def ko moo tax mu ne laa yexilu du dagan lil junu bi ñeexel ko xamee ba du xoolul masjidi tàbbi jàkka képp ko xam jana ba xaraam na ngay dugg ca jàkka ja ndax sobe nga sobe waru dugg jàkka moo waral boo meesoo sa mees yooyu jàllar maanaam bi ngay sangu janaba nga takk ko wala sax taxaas nga ko waaye tooyut waroo dugg jàkka ja ndax ba tey sobe nga wala qiraatul quraani daganut muy jàngaxal quraan ku yore janaba du jàngaxal quraan ñu ne faw mu ne ha ilal aaya ndere ab laaya wa naxwiha ak lu niroog ab laaya ni ki ñaar ba ñett lu tax nga di ko def li tax awusi ngir muslu wa naxwihi ak lu niroog muslu ni ki gàgganti ku gàkk wala defaral koo xam ne dafa yàq wala maanaam danga xamoon ak mocc ak wala mocc ak jaan goo doon nañu woon ci say maam wala say baay mu am ay alxuraan nga ca nekk ñu indil la koo xamee dafa koo dal nga di ko mocc su boobaa man ngaa jàngale aaya yooya nekk ca biir mocc ga te fekk yaa nga xam ne janaba waaye lu dul lu mel noonu xaraam na bi maanaa nga yor janaba pare di ko defati kon nag sobe nga bul dugg jàkka sobe nga bul jàngaxal alxuraan lu dul ay aaya yoo xam ne muslu ak mocc ak gàggantiku yàq ak la ci xaju mooy tax nga di ko def léegi nag euh, loolu mooy tax nga di ko def léegi nag safaanab ku yore euh, reegal la ak ku yore gësin jigéen bu yore deretu reegal wala mu yore deretu gësin diirëb lim koy yore mën naa jàng alxuraan la ko ca neex waaye amul droit téye lu dul muy jigéen gu yore reegal daan jàngee ca daara ja ñi bëgg mu mokkal alxuraan wala mu bokk xal dara ci alxuraan kooku moom Maalik nee na bu ko regal gaaree mën naa téye kaamil bañ koy sasee wala téere ba di ko ca jàngal ñi ko cay jàngal mu di ko xool te fekk ma ko téye waaye ku dul kooka amuloo droit téye téere fekkee dangaa yore reegal soo yoree deretu gësin amoo droit téye téere alxuraan waaye nag am nga droit jàng alxuraan yow yore deretu gësin muy njureel mbaa nga yore deretu reegal mën ngaa jàng alxuraan lu la neex donte kaamil bi ngay wàccee mën na waaye bul téye téere waaye ki yore janaba nag moom dañ ko tere ñaar yëpp bul téye téere bul jàng moom ñaar yëpp lañu ko tere lu tax ki yore jana ba am na kartan ci mën a yëkkati tojam ma ndax moom dara doxut ci diggante yëkkati toj ak moom lu dul ndox moom boo xamee ndox rek ànd ak ñeme ndox ma rek mën naa dem sangu ji bu sangoo rek moom léegi laab na comme ñëpp kële nag moom lu sangu-sangu bu doon téeméeri junne yoon la sangu ci bis bi tamit taxagul mu laab balay mën a mu wér rek mooy deret ja moo léegi nag li mu ñàkk kartan ci mën a yëkkatim toj mi moo tax ñi may ko mu jàngaxal Quraan tere ko mu téye kaamil kële nag li mu am kartan ci mën a yëkkati tojam bi moo tax ñu téye ko ñu tere ko téere tere ko tamit mu mu mu jàngal alxuraan te ñaareel ba deretu régal moomu nga xam ne léeg-léeg mu am ci yow fukki fan ak juróom ci yenn ci jigéen ñi loolu lépp bu ñu la teree ne la bul jàngal alxuraan kii wuréy mën na laa faat ñaareel ba boo nekkee ku gaaw a fàtte lu bëree bari mën nga koo fàtte ci alxuraan rawat na nag bu nekkee deretu njuréel nga xam ne li gën a yàgg ci moom mooy diir distance ba mooy ñaari weer léeg-léeg nag mu dagg ci lu gën a tuuti ñaari weer rawatina sax bi euh, médecins yi xewee léegi tabarkàlla seen xereñe gi ba mu feeñee ak léegi léegi danga gis nit ku am doom fukki fan rek deretam dog waaye daal distance boobu moom deret diggante feeg ba muy dogee amuloo droit euh, maanaam téye kaamil wala téye téere waaye man nga jàngaxal alxuraan ndax soo ko defut ci wuré dana la faat te boo yombee fàtte lu bari mën nga koo fàtte kon nag ki yore janaba rek moom lañ tere mu jàng moom lañ tere tamit mu téye ab kaamil waaye may nañ ko ab aaya ngir muslu ak lu ko niru ak maanaam mocci ak gàgganti yàq ak ya ci xaju mu des nag bii ne walaa yi jus du dagan li man ñeel ka nga xam ne laa yaqdiru xàttanut alal maay jëfandikoo ndox baari di mu sedd an yaatiya muy dikkal saw jëtawoo soxnaam sa faw mu ne a xataa yu ba tax mu préparé al alata jumtukaay jumtukaay nag mooy gaz wala maanaam bu xamul wala wala sofaas bu xamul yooyu mu wut këriñ gu mën a booyalee mën caa teg wala matt yooyu yëpp ci jumtukaay la. képp koo xamee na nii ndox mi mi ngi fi waaye dafa sedd ñemewoo ko sa soxna si nga fas yéene sëy ak tamit ndox mi kon nag amul leen droit sëy nga xam ne su ngeen ca bàyyeekoo da ngeen ni dem ci tiim kon yéen la leen tax a tiim yéen ko fàggul seen bopp bala ngeen a mën a ànd rek day fekk ngeen ut ndox. mu ngeen war a sangoo bu fekkee ndox ma ñemewu leen ko ngeen ut jumtukaay boo xam ne mën naa tàngal ndox ma ba nga xam ne su ngeen ca bàyyeekoo rek mën a sangu ca ndox ma waaye bu loolu xamut kay yéen ngeen ànd kon li leen tax a tiim yéen ko yéen a ko yéen a ko def ñu ne faw ñu ne lu dul ku gëjee ak soxnaam xam nag dafa tukki gëj ci soxnaam lool ñëw ci jamonoy sedd mu ragal ndox ma soxna sa ragal ndox ma te bu àndut ak moom mën na koo lor wala mu lor soxna sa chariat diinay jàppandal la te lay wax ne la ànd la sa soxna su ngeen ñemee ndox ma ngeen sangu saa su ngeen ko ñemee wut ngeen wuti jumtukaay saa yu ngeen ko amee tàngal ko sangu loolu lépp nag su waxtu wa jotee te fekk yëpp amut ngeen tiim julli diina ji diinay jàppandal la loolu kon loru loru gaa tax ngi daganal la loola ad daruraat tubixul maxsuraat waaye nag bu loru loru googu amut moom gi gëjoo fa ah bala ngaa ànd ak moom nag demal nga wuti jumtukaay boo xam ne moom ngeen war a tàngalee ba pare su ko defee nag ngeen bu ngeen paree rek mën a jëfandikoo ndox ma sangu ci li ko moy la leen yóbbu ci tiim yéen ko yéen ko yéen ko yéen a ko sabablu danaay wax nag ne ku yàlla dénk soxna nga gëj fa bis bu ay moom def nga ay su fekkee toog nga weer gëj fa boo tuul da ngeen weerante su matee xat nag boo amul sens dañ leen xatte kon nag soxna yi gëj fa moom gënut moo tax mu ne walaa yi joosu du dagan li man ñeel koo xam ne laa yaqadiru attanut alal maa yi ci jëfandikoo ndox baari du bu sedd an yaatiya muy dikkal saw jotoo soxnaam sa faw mu ne xattaa yoo idda ba tax mu préparé al alta jumtukaay jumtukaay nag lu yaatu la furna buñ def këriñang ca fu maanaam matta nga ca gaasa nga ca sa sofaas bu baaxee tamit lépp ci jumtukaay la bokk ñu ne faw mu ne ah ilaa an yaxtali man ndare ku gént kooku de moom fala chea de daral di koy war tëdd ba guddi gént rek ne da ngay soxna yàlla dogal nga xëy gis sa tubay ji am lu ca nekk kenn du la wax ne la demal wuti jumtukaay door a tëdd ndax bi ngay tëdd xamoon da nga géntam déet kooku moom saa yoo ñemee ndox ma rek ngay dem sangu bu waxtu wa jotee fekk ñemee woon ndox ma tiimal nga julli soo tiimee julli nag yàlla dogal nga ñemee ndox ma te waxtu wa paasee gut dangay baamu baamuwaat sa julli nga ca waxtu wa bu waxtu wa paasee nag dootoo ko baamooti kon nag loolu rek mooy saxaate bi ci yooyu su ko defee nag kon ñi bàyyi xel ci loolu bu baax a baax kon boobu buntu moom leer na bi ci des nag mooy ñaari laab ñoo am laab ak ndox ak laab ak suuf ndax doomu aadama dañ koo bind ci diggante ndox ak suuf moo waral ci ëllëg tamit ci lay dellu ci suuf la lañ la bind ci suuf ci ngay dellu ci suuf tamit bu ëllëgee ci ngay dekkee moo waral tamit ñi defal la suuf ëllëg nga man di ci laabee di ci jaamu sa borom naka noonu tamit ndox foo gis nit ñaareel gis fa ndox ba tax na bokk na ci liy teyal dund ak doomu aadama te mooy li tax muy dund tamit ndox ci la bokk moo tax tamit ndox moomu tamit bokk ci li nga xam ne moom lay jëfandikoo man caa jaamu boromam. gannaaw nag borom al axdar yu bi mu jeexalee ci laab ndox la bëgg a dugg ak ñun ñi nag ci laabak suuf laab suuf googu nag lay wax ne muy muy tiim moo tax mu ne faslun lii day teqale wax fii tayamumi ci tiim waaye tayamamu dana tiim al musaafiru aji tukki ji fii xayri marsiyatin ci tukki mu dul mooy yàlla wal maride ku feebar ñoom ñaar ñëpp mën nañoo tiimal li faridati ñeel julleeg farata aw naafilatin ak julleeg naafila képp koo xam ne dangay tukki te sa tukki ma duhu tukki mooy yàlla yàlla dogal nga ñàkk ndox ci sa biir tukki ma wala sax xam nga ndox waaye danga ragal ne boo ko jëfandikoo hee yow ki sa bopp mar mën na laa gaar ci sa yoonu tukki wi wala boo ko jëfandikoo hee li nga ànd ak muy bàyyi ma di aw fas walla am xar wala bëy xataa ba ci xaj moom ci boppam mën na koo gaar am mar sariya dafa lay wax jox ko xaj bi mu naan ko wala fas wi wala xar mi te yow bu waxtu jot julli jotee su ko defee maanaam nga tiim kon gis nga lislaam ku xormaal bakkan la ku xormaal luy dund la moo tax ñaareel kuy dee ak kuy dund lépp luñ xëccoo rek kuy dund lañ koy jox xeñ ko ki dee moo tax nag kon boo tukkee tukki moomu yàlla dogal amuloo ndox ci sa biir tukki ma walla am nga ndox waaye mën mënoo koo jëfandikoo ngir ragal sa sug feebar ak ko feebar yéex a wér wala sax loolu lépp ragaloo ko ragaluloo ko ca waaye boo jëfandikoo ndox mi danga nga mar wala bi maanaa li nga ànd ak mar su boobaa sharia wax na la na la tiimal nga julli julli yëpp mën ngaa julli farata yëpp tu subaar tàkkusaan timis gee naka noonu tamit mën ngaa tiim nga naafi la lu mel ni safaak witar ak yeneen yi nga xam ne bëgg nga koo naafile comme dangaa nekk kuy tukki ñaareel ba ñu ne nag tukki yëpp mu ne déedéet tukki mu dul mooy yàlla waaye saa yoo tukkee tukki moo xam ne tukkee mooy yàlla la mayetuñ la nga tiim moo xam tiim nga farata la moo xam tiim nga naafile la tukkee mooy yàlla nag lu yaatu la jigéen gu génn ci lu duhul ndigalal jëkkëram tukki fekk ba muy ñewee ci mooy yàlla la ne kon nag boo jëfandikoo masalam laxdari mile mu ne kon waroo tiim kon xam nga ne li nga de loolu bàkkaar bu rëy la nit kuy daw ay waajuram ci lu duhut seeni ndigal ca la ne di ko dox kooka tamit feeg ba muy ñëwee ci mooy yàlla la kon borom Laxdari nee na tukki ma bu ko ci waxtu julli dabee moom bum tiim ba ca tegu tamit ku xam ne dafa tukki ngir seetaani am po mu mun di doon mu dul ñetti po yu yonent bi limoon lu mu bëri bëreeg lu mu sori soreeg loo fa yàgg-yàgg kooku tamit borom Laxdari ne bul tiim tukkee mooy yàlla la naka noonu jamono jay jaam di am jaam buy daw ab sangam wala maanaam surga buy daw liggéey wala bi maanaa koo xam ne dañ koo jël mu war liggéey ci place waxtu wa jot muy daw kooku tamit ci ci ci mooy yàlla la bokk yooyu yëpp suñ ko jëlee yaatale ko dana yaatu su boobaa tamit ñooñu ñëpp borom lax dari ne duñ tiim ñenn ngi nag nag wax dëgg yàlla tiim nag ak yolombal la goo xamee na nii may nañ la ko ci teewaay may la ko ci tukki kon nag su boobaa tukkeem mooy yàlla du tax bi maanaam nga ñàkk koo def moom kay xam nga bàkkaar bu mag ci tukkeem mooy yàlla moom a nga sóobu waaye nag du teree bu waxtu jotu julli wa jotee moom mën ngaa tiim rek nga jullil ko loolu ba tey gis-gis la ci yenn ci fuqaaw yi ci ibnu qaasum ci ñooñu la bokk moo tax kon waaye tey moomu dana tiim almusaafiru aji tukki yépp mu ne fii xayri masitin tukki mu dul mooy yàlla wal marido ku feebar ba nga xam ne dafa ragal ne bu jëfatikoo ndox mi jëlee ko ku feebar ak yéex a wér ñoom ñaar ñile mën nañoo tiimal li farati ñeel farata yépp tusubaar tàkkusaan timis gee aw naafilatin ak naafila yépp mën nañ ko tiimal waaye waaye tey moomu dana tiim alxaadiru ku teew sa ku wér yaa ngi nii teew wér dara dalul la nga am ndox ñu ne mën ngaa tiim lil faraay di ñeel farata yi muy subaar tàkkusaan timis gexe kañ isa xaafa bu ragalee xuróojal waxti génn xuróoja waxti yaa génn waxtu wa su boobaa tamit loolu ma leen masalal su fekkee da ngaa bokk ci ñi wax ne dab waxtu moo gën dab laab kon borom lax dëri ne kon nga teew wér ndox maa ngi nii ci sa kanam nga jàpp ne jàpp a gën a yéex tiim tiim a gën a gaaw njàpp su ma fi nekkee di jàpp balaa pare waxtu wa faat su boobaa borom Laxdari nee na may nañ la nga baxi fan ndox ma te dem tiimi ndax nga mën a dugal sa julli ga ca biir waxtu wax ndax moom dafa bokk ci ñi wax ne dab waxtu moo gën dab laab moo tax mu sant la loola waaye su fekkee da ngaa bokk ci ñi wax ne dab laab moo gën dab waxtu te ñooña Seex naa Ahmada Tijaani ca la bokk su boobaa nag moom jàppal donte lay waxtu wi dafay génn nga julli ca biti waxtu wa ndax mu ne alquran dafa nañu ne lii waral ñàkk ti mooy ñàkk ndox rek lii waral ti mooy ñàkk ndox tax alquran dafa ne fa in lam tajidoo maa an fa tayammamu kon nag fa in lam tajidoo la wax bu ngeen amul kon am nañ nag farfar suñu jàpp xam nañ kay xaqiqatan man ko am mën a jàpp mën koo jëfandikoo kon dañuy jàpp rek su ko defee nag bu waxtu wa passé ñu julli ca biti loolu ki la Seex na Tijaan yi d'accord waaye walaaye tey ma du tiim xaadiri ku teew sayiw te wér li naafile ti ñeel naafile yi ki nga xam ne dafa teew te wér nii dara dalu ko kooku moom euh, du mën a tiimal naafila lu mel ni dawal ñeenti rakka njëkkatu subaar doo ko mën a tiimal ci masalay laxdar yi mii doo mën a tiimal ñeenti rakka njëkkatu subaar njëkk tàkku saan naka noonu tamit doo mën a tiimal mu lu mel ni yeneen julli naafile yépp yooyu doo ko mën a tiimal waaye wala jumaatin du mën a tiimal jumaa ku nga xam ne dafa teew te wér mënta tiimal jumaa doo tiimal jumaa nag lam ca namu yaa ngi nii yaa ngi teew wér nga xam nga ndox waaye danga dégg jumaa ja taxawal nga ne su ma fi nekkee di jàpp bala maa pare jumaa ja sëlmal te kon jumaa dana ma faat su boobaa borom lax Laxdari nee na jàppal rek bu paree bu jumaa ja faatee nga julli tisbaar loolu sax ci la Seex na Tijaani ak borom xam-xam yu bari d'accord waaye nag doo wax ne tiim a gën a gaaw njàpp nga baxi fi ndox mi le jàllar bi ku dem di tiimi ngir mën a dem ca jumaa ja mën a dab rakkaab jumaa ja loolu lépp nag seen xuute gi ñaara tax dafa am ñu ne jumaa mooy farata ci bis ba bisu a àjjuma ba tax na loo julli lu dul jumaa tamit taxul nga xam ko ñoo ngi dañoo jàpp ne tusubaar sax boo ko jullee taxul nga xam ko ndax bis ba jumaa mooy farata ñenn ñi ne déedéet jumaa nag dafa ñëw rek ngir remplacer tusubaar ba tax na soo waroon a julli tusubaar soo waroon a julli jumaa bu la faatee mën ngaa julli tusubaar te booba dana wér ndax kat yonentu bi yàgg na fi julli te tusubaar rek la doon julli lam nekk màkk yépp tusubaar la doon julli ba mu ñëwee ma diina eh, ci yoon wi ci lañ farataal ci moom jumaa kon jumaa dafa dafa ñëw huutu tusubaar ñi wax loola nag kon moo waral ñu ne loo am am ndox man koo jëfandikoo doon tele waxtu wa dafay faat jumaa ja jàppal bu paasee nga jullee ko tusubaar ñi wax na nag bis ba kat tusubaar rek du sa farata waaye jumaa rek cay farata ñoom dañ ne bàyyi fa ndox ma nga dem tiimi dem fexe ba dabi jumaa ja naka noonu wala janaasatin du mën a jullil néew koo xam ne dafa dafa dafay tiim mënta jullil néew ku teew te nii nii a tiim tiimal néew faw mu ne illa iza taayanat ndare ba ràññee ko àllee ci moom aljanaasatu néew ba ne taayanat nag mooy rek li Seex Xalil wax mooy illam yujad xayruhu mooy ña fa nekk ñépp yow kenn yaa fa mën a jullee néew yow kenn rek yaa ko man su boobaa te yow da ngaa amee ngantal jàpp kon soppeeku na farata ci yow su boobaa nag kon tiimal nga jiite néew ba waaye su fekkee ñeneen nang fa am njàpp mën a jiite néew ba kon yow sax bul bokk ci jullee ga bahil ñi am njàpp ñoom ñu jullee néew ba kon nag ki teew te wér mënta tiimal naafila ki teew ta wér mënta tiimal jumaa waaye nga déggee ci nag ki nga xam ne dafa feebar wala moom sax mi ngi teew mais amul ndox moom moo xam ne moom la man a jëfandikoo wala xam na ndox sax waaye dafa ragal ne bu ko jëfandikoo jëlee ki susug feebar mbaa dolee ko feebar mbaa yéex a wér kooku moom ittifaqan man naa tiim mu julli jumaa dara newut ca waaye nag ki teew te wér tamit manta maanaam jullee néew lu dul mu nekk néew bu ràññeeku ci moom tamooy mooy ña fa nekk ñëpp moom kenn moo fa mën a jullee néew su boobaa mën naa tiim mu jiite néew ba su fekkee ñeneen nang fa ñu mën a jiite néew xam njàpp na leen bàyyi ñooñe ñu jullee néew ba te moom maanaam mu ñaanal néew ba rek yàlla te bañ a bokk ci ña jullee loolu daal mooy xatte yi nga xam ne moom la borom Axdari yi wax